Abdoulahat ngaa nga soo pare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

对我该没有。yegg si nañ ci quai de pêche bi. non ñëw fii la ñëw fii la. ah damay fii nag programme bi baaxul la. waaw wala indi leen foofu bank bi. foofu bank bi ngay indi ak sama téléphone. allo Michel. allo Michel. xam nga yegg si nañ ci quai de pêche bi ak ki nga xamante ni mooy président Khalifa Ababacar Sall ak waa coalition Khalifa président 2024 ngi ñëw war a saafonteeg ñi nga xamante ni ñooy jaaykatu jën yi waaye war a saafonteeg ñi nga xamante ni ñooy nappkat yi maanaam ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci géej gi ñu leen di fàttali ni programme président Khalifa Ababacar Sall mooy suuf si ndox si ak doomu aadama bi kon bu ñëwee fii nga xamante ni mooy géej gi wàcc na waaye dañuy def dañuy def waxtaan ak micro territoire soxna si nuyu naa la. maa ngi ñuy photo Sones ça va. bien. Sones la mooy sa tànk fii ci Mbour ak xali président Khalifa Abacar Sall. waaw tey dañ fay ñëwoon ànd ak suñu président ñëw dox suñu mbokk waxtaan ak askan bi di waajal élection yi pour ñëpp voter ñu incha allah ñu waajal ndam li pour defar Sénégal. waaw ci defar Sénégal boobu laal bëgg laaj parce que dañ dégg le président Sénégal euh, Khalifa Ababacar Sall mu ne programme am ngi tënku ci suuf si ndox si ak doomu aadama bi lan moo waral lool ak yow noo ko gisee. waa tey li waral lool suuf si ndox si si waa parce que lépp loo def dañ ci boole nit. parce que nit mooy lépp tey ji mënoo def lenn loo xamante ni tey doo ci boole nit ñi ndax nit ki mooy mooy daal ñooy ñooy jug di dooleel seen bopp di dooleel askan bi tey boo gisee tamit ndox bi am na ñoo xam dañu am problème ndox am na ñoo xamante ni dañuy toog journée duñ gis ndox waaw tey jii nag bëgg nañ jàppale ci loolu nga xamante ni tey jii nax ndox mooy lépp ndox si ngay dundee si ngay defee lépp tey bu am ndox doo mën a togg maanaam ci loolu la daal. kon yéen programme bi gis ngeen seen bopp yéen xale jigéen. ci suñu bopp bu baax. merci jërëjëf wa salaam. waaw ah, ba tey ñu ngi ci biir quai de pêche bi ñu ngi noonu ànd ak euh, waa coalition Khalifa président 2024 ñu ngi ciy gis ku ci mel ku ci gën a ku ci mel ni monsieur Barthélémy Toye Dias maire de la ville de Dakar waaye ñu ngi ciy gis maire Waré Diaw waaye ñu ngi ciy gis Amazone yi tamit seen taxawaay am ci solo trop trop trop trop trop ak xale yi nga xamante ni ñu ànd ak président Khalifa Ababacar Sall di wax ni nii la nit boo bëggee réew da ngay diisoog waa réew mi boo bëggee réew da ngay waxtaan ak waa réew mi xam la mooy seen ay xam la mooy seen ay bëgg-bëgg pour ëllëg bu yàlla defee xéwal ci yow seen bànneex ndax ñoom ñoo la fi waaye ñoom tamit nga war a dab seen bànneex loolu am na solo ñu seen président Khalifa Ababacar Sall a ngi noonu dox comme ni ñu ko waxee délégation bi nga xamante ni ñoom la àndal mu def mobilisation bu am doole war a ñëw fii ci